internautes Univers Info TV bi euh, bienvenue dans émission jeune entrepreneur comme ni ñu ko tàmm di defee on est en prélude de la de Tabaski c' est normal tey ñu doxantu ñoo xool ñi nga xamante ni jamono ji ñoom ñooy staru événement bi muy euh, les stylistes et les tailleurs tey nag ñu doxantu fii ba Liberté 6 Devoir Liberté 6 seet si benn ndaanaan un jeune très talentueux l'un des meilleurs stylistes ici au Sénégal l'homme qui passe tout simplement par le nom de Tidiane borom Taylor d'or moom la si tey le PDG en personne fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom mooy parcours am fas waxtaan ak moom aussi ci événement bi ba ñu see sori rek dañ koy taalal micro bi bàyyi ko mu nuyoo yéen mbokk internet bi Louga Info TV ñu soog a commencé salaamaaleykum Tidiane. maaleykum salaam Badi sama gars yi maa ngi leen di nuyu. Mm-hmm. nuyu internet univers univers mm-hmm. nuyu nuyu clientèle mm-hmm. nuyu képp ku ñuy rek. di nuyu waa personne. Euh, macha allah Tidiane euh, ñu ngi ci euh, di dëgmal li nga xamante ni moom mooy tabaski bi naka ngeen koy préparé yéen waa Pélor Dóor. waaw tabaski bi moom bon dañ koy préparé comme ni ñuy préparé événement yëpp parce que ñun moom toujours li may wax gars yi rek événement moom su dee suñ demee ba koy def rek juste que pour satisfaire clientèle bi mais événement moom métti na métti boo xamante ni. Mhm. satisfaire client bi rek muy jaral loolu quoi mais du xaalis bi am du dara quoi mm. mais xam naa ne coono bi ñu ciy daj. non mm. dara jaru ko quoi. d' accord sànq bi ma ñëwee fekk naa fi ñoo xamante ni ñëw nañ pour di commander ñi nga xamante ni mooy seen ay ñëw nga ni leen bouclé nañ euh, loolu naka la demee. waaw Carrot Top fii moom dañuy gaaw a bouclé fii euh, dañuy bouclé un mois avant fête. Mhm. waaw c'est un mois avant fête dañuy bouclé commande yi. Mhm. parce que demande yi ñuy am fii tamit du ñu bëgg di changer qualité. tenue yi. Mm-hmm. wala ñuy liggéey liggéeyu chinois wala dara. dañuy bëgg toujours ñu respecter suñu qualité de tenue yi. Mm-hmm. moo tax un mois avant dañuy dañuy dañuy boucler commande yëpp quoi. Mm-hmm. macha allah mais bala ñoo dugg rek li nga xamante ni moom mooy ci biir waxtaan bi foog ñu ci parcours bi parce que c' est tout ay xale ngeen euh, je vous que moom mii toog moom mooy PDG bi te ñi nga xamante ni ñoom ñoo liggéey bi yëpp kenn amul ci 30 ans mu doon loo xamante ni euh, euh, sénégalais yi war nañ ci mën a jàngat war nañ ci mën a jëlee leçon ma bëggoon nga ñëw tuuti rek ci sa parcours say début yi naka la demee. waaw début bi moom duñ naan tout est début c' est difficile ah. loolu la début yëpp moo difficile xam nga début bi metti woon na trop. metti woon na trop trop trop sax parce que genre mënuma la wax ak lii laa démarré quoi. mën naa ne dama démarré ak zéro franc dara nekk woon ñu doon démarré xam nga ñu nekk ci ci nga daanu ba ba ba tey ñu taxawal lii quoi te ambition bi mooy ñu taxawal leneen lu ëpp lii. Euh, fan euh, ci wàllum ñaw fan nga jàngee. waaw ñaw ñaw moom daanaka. donc tourné naa ko a jaanaa si atelier yu bari mais ñaw dama dama fay man pour jàng ñëw dama fay ñu may defar formation yu jàng ñëw xam ñaw nag xam ñaw tey su ma rombee si mbedd bi su ma gisee ñaw bu baax naa ko xam yàlla may na ma don boobu quoi su ma gisee lu lu baaxul tamit dinaa ko xam su ma gisee défaut bi fu mu nekk dinaa ko xam hmm. comprendre loolu noonu li la koy may mooy nga jàng ñaw en plus nga tarbiwu ko man dama tarbu yu ñëw dama doon dem atelier nekk apprendre ñu may yan boolu añ muy mhm. dem di yanu añ di ko indi gars yi di xewlu mhm. kon donc loolu noonu tarbu yu boobu noonu ngay tarbu yu après moo lay mooy mooy revenir quoi moo lay moo lay fay pour ngay xam mhm. yow li ngay liggéey lan la quoi nga tarbu yu ko à un moment donné nga nekk fële ville à un nekkoon nga foofu noonu yor fa sa pukkus bu ndaw di góorgóorlu loolu aussi naka la demee. waaw ville bi ñu fay nekk bi ñu njëkk a démarré mooy euh, dañu yoroon benn place ñun ay sept personnes. bu si nekk da ngay teg sa machine. léegi weer bi deewee nga fay quinze mille. comprendre loolu lañ démarré ak ville quoi. Mm-hmm. léegi bi ñu demee ba dem si mu boobu ba si kanam. léegi dañoo suñu place boobu comprendre nga léegi bi ñu demee mooy place bu xos boobu weex bu ndaw bi fa lañ nekkoon après bi ñu demee ba foofu en arrière bi ñu dañu jël en face suñu jàllaar lool mooy beneen sëwru beneen sëwrum bu ndaw bi ñu jaaxaarloo. ñu jël foofu nekk fa nekk fa. bi ñu demee ba marché bi arrangé tuñu parce que li ñuy def li ñuy def war na mën a a am visibilité. Mhm. dañ ko génnee ñu déplacé wu carrément ñëw installé wu fii devant Liberté 6 yi en face Camp Pénal. Mhm. fii la ñu gën a mën a nekkee à l'aise quoi clientèle bi ñu soxla tamit fii la ñuy gën mën a ko fekk ka marché. d' accord euh, donc loolu euh, boo ko boo ko nettalee nii euh, yomb na nii ci wax mais yombul ci ñi nga xamante ni moom mooy financement ak ñi nga xamante ni moom mooy réalisation bi ñoo la ba am somme boobu noonu pour mën a financer mën a changer de camp. non li ma liggéey rek xam nga nit ki booy liggéey nga am ay ambition am ay ngay liggéey moo lay yóbbu fenn fi du amul kenn ku mun a taxaw ne kaala dool mos naa ko mos naa ko dugal sama un franc amul. du papa du yaay du mag du àndandoo du kenn waa fii lépp lu fi nekk ñun ñoo ko def ak suñu propre moyen ànd si tamit ak samay grand yoo xamante nii maanaam que activité bi ñuy def si job bi peut-être mooy bus sa job bi quoi. dañ ma gëm quoi ah dañ ma gëm de mm. comprendre gëm ne lii day dem quoi. Mm. comprendre ambition yooyu moo fi nekk mais pas ay finance non amul kenn ku ñuy financé moom fii lu fi nekk. suñu suñu poos lañ ko lañ lañ ko làmbee moo tax dossier livre dañu livre amul kenn ku ñuy conditionné moo tax lu ñu bëgg a def dañ koy def mm-hmm. am na solo mais biñ ne da ngay déplacé wu ñëw fi nga xamante ni moom mooy Devoir Liberté 6 yi pour gën a yaatal liggéey bi am na suñu la doon reetaan parce qu'il pensait que c'est quasiment impossible ah, nga réaliser ko def fi macha allah ouverture bu am solo média yi ñëw sa xarit yi ñëw euh, moment yooyu naka nga ko dundee waaw loolu moom day am xam nga booy def benn affaire su ma nekk jeune di yàgg di rêver yàgg bëri ay rêve ci sa bopp ne da bëgg a def lii def lii am na loo xamante ni boo jëlee risque yi di ko def gars yi dañ dañ dañuy dañ naan dafa waane ñi naan boor bi dafa dafa dafa waane dafa sob dafa dooj xam nga te alors que nekkul loolu yëpp am ambition bu mat la ak bëgg-bëgg ak am fu ñu bëgg a yóbbu marque bi mhm. parce que man taaloon doon jàppee wu ma comme toutes les ateliers tailleur wala dara man marque laa ko jàppee. Mhm. marque de vêtement la comprendre nga. Mhm. moo tax lépp lu mu laaj si lusku dama koy dama koy dama koy jaayante pour def parce que y a des yu bëri yoo xamante ne nii mënoon na ñàkk quoi mais dañ koy def juste que pour pour promouvoir marque bi mais gis nañ ni tamit milieu bi nga xamante ni yéen a ci nekk am na yeneen ndawit yoo xamante ni ñu ngi ñu ngi ci propulsé am na si ñoo xamante ni si loolu euh, donc concurrence boobu naka la demee. non man moom su ma taxawee seet bi vraiment sama bopp laa gis mm-hmm. parce que genre gars yi bëri nañ xam nga mm-hmm. ñuy defar tenue yu bëri nañ mais mm-hmm. ñuy defar tenue yu bëri nañ mais ba léegi affaire yi des na quoi affaire bi des na vraiment parce que parce que man yaaxaat man man li ma jàpp boobu li ma jàpp ne moom laay def boobu vraiment gisuma keneen ko kuy def te man xooluma concurrence quoi d' accord kon gars yi daal maanaam dañuy nappe nii rek nii nii mais. qualité bi yow en tant que tailleur boo gisee di nga xam ni yaa ngi. très grande différence yow non non biru biru biru biru bi yomb na quoi mais. tant que biru bi dafa am lu jiitu ba pare. Mhm. nit ki bala ngaa nekk fii di biir wi di biir wi da ngay defar sa ginnaaw mhm. defar sa sa production boobu normal mhm. ngay génnee qualité tenue yu baax responsable yi di ko mën a sol parce que yow yow kenn kenn waxu la quoi yaa fi teg sa bët bi ñu fi toogee ba léegi mm-hmm. gisoo fi benn booy buy cali cali ñëw di di kii mm-hmm. ay kilifa ñoo fi ñëw ay responsable ñoo fi ñëw mm-hmm. ñooñu la ñu amal affaire quoi loolu li ñu ko may mooy que dafa am lu ñu viser ñun dañu viser qualité ñun liggéeyu liggéeyu chinois dañu viser qualité qualité bi nag lépp lu ñu lépp lu mu laaj dañ koy def. Mhm. soo déggee mën naa la ñun dañuy teel a collecter pour lool la. Mhm. parce que dafa am nombre de bu ñu bu ñu mën a produire. Mhm. loolu dañ koy calculer duñ ci yokk benn tenue duñ ci wàññi benn tenue. loolu bu matee rek dañuy dañuy buggalee affaire bi. d' accord loolu am na solo am na je vous rappelle que vous êtes dans votre émission. jeune entrepreneur ñu doog ki nga xamante ni moom mooy Tidiane euh, PDG Taylor Dor mais Tidiane seetlu nañ ni boutique bi tamit euh, am na ay accessoires yoo xamante ni mooy ànd ak ñaw yi ngay ñëw yu si mel ni euh, maraakis yi mocassin yi ah parfum yi et ce que loolu aussi mën nga si ñëw. waaw boutique bi moom am na lépp loolu soxla si wàllu habillement am na fi. Mhm. parce que bu ñu la jaayee tenue am nañ ay bu dee costume africain am nañ ay dàll yoo ko mën a booleel. Mhm. fekkee basin am nañ ay maraichis yoo xam mën a booleel yaa des mocassins ay manchettes mm-hmm. parfum sax am na fi mm-hmm. comprendre loolu yëpp boo gisee ñu koy def bëgg nañ tey affaire yi gën a yaatu ba tey soo duggee boutique Talla Dolor lépp loo bëgg si tëb yi soo fi jëndee da dem rek nga sol nga dem mm-hmm. comprendre nga loolu mooy ambition bi quoi te loolu lañu bëgg nañ daal gën ko yaatal ba ba affaire yi gën a yaatu quoi am na solo yan difficulté ngeen di jànkonteel ci liggéey bi waaw liggéey bi moom des fois day métti trop day day metti parce que clientèle yi des fois nga daje ñoo xamante ni dañuy compliqué. Mhm. parce que des fois xam nga ñaw dafa am ay normes ak ay règles. Mhm. mais des fois nga gis clientèle yoo xam ne dañuy bëgg génn règle ñëw dañuy ñëw ne la defal ma lii te alors que loolu am mënul nekk si ñaw. Mhm. comprendre nga des fois problème yooyu da nga am tamit des fois tamit kii euh, sa gars yi duñ la comprendre parce que. dañuy ñëw fii si boutique bi boutique bi dafa am ay normes dafa am ay règles mm-hmm. tey boo laajee benn yére nga gis yére bi ñu bind si prix bi. Mm-hmm. comme naa bi tey booy bi toog si kees bi amul droit wàññi prix bi. Mm-hmm. man na en personne amul droit wàññi prix bi bu ma la wàññilee nekk sama gaayen man damay jël sama xaalis en personne ma ràmm sa kees bi. parce que kees bi moom ala kulli aal loo ma koy fay quoi. ba tax gars yi nag des fois dañ lay jéem a mere ci côté boobu wala ñu lay jéem a te alors que demeewu fa noonu quoi niveau bi ñu toll moo moo moo moo ñuy xaw a sonal ci benn benn benn côté bi xam nga fii boutique bi fii ay caaxaan fay location bi comprendre nga te y a des yu bëri ci biir y a des 17 employés ci biir. Ah ñu ñëpp ay salari ay salariés lañ. Mm-hmm. comprendre nga kon donc ñun liggéey moo ñu war quoi en fait. Mm-hmm. liggéey waruñu fi nekk di xool nit lu ko neex wala dara. man en personne xooluma lu ma neex parce que su ma xoolal lu ma neex mën naa wàcc fii ni dix-neuf heures vingt heures dem tëdd mm-hmm. man na la ba doyal mais fi laay nekk ba ay six heures du matin ay cinq heures du matin xam loolu bëgg booster li ngay job moo koy moo koy waral ko mais du nekk affaire de xaalis wala genre yaay nit yi nag ñu bëri duñu comprendre loolu dañ la si meree xam nga alors que ñun ñëpp c'est la famille débutant la doon ñun ñëpp si jàpp mm-hmm. kon donc ba léegi nii gëm naa ne gars yi war nañ ci mën a gën a jàpp après yóbbu ko fi mu fu fu ñu bëgg mu yegg quoi mm-hmm. noonu lay demee sax ah tout liggéey boo gis rek dafay laaj ay sacrifice te loolu dafa bokk ci sacrifice yi mais tey yaa ngi doon wax objectif yi sànq donc boo ñu mënee ñëwoon rek si tën yi nga xamante ni yaa ngi koy confectionné prix fan la commencé ak fan la yem c'est important pour ñi nga xamante ni ñoo ngi seetaan gis tenue yi ci PC yi bëgg ci jënd bëgg ci commander aussi. waaw tenue Tailor d'or pour le moment tenue disponible ci boutique bi. Mm-hmm. tenue yi am na à partir de cinquante cinq mm-hmm. mille. ba ba soixante dix mille ba quatre vingt mille. mais tenue yi soo leen gisee muy am différence. Mm-hmm. nekkul si couture bi trop. parce que tenue bi des day am tissu yoo xamante ni ay tissu yu cher lay nekk. ay tissu de qualité la. comprendre parce que sànq maa dañuy concentré wu qualité mm-hmm. parce que mënoo ne da liggéey qualité après ngay dem Colobane di jël buub tissu Colobane yow bëgg ko liggéeyee. Mm-hmm. xam nga loolu presque du am différence quoi ak tenue yi gars yi di jaay. dëgg la moo am différence moo tax di yegg ba ay ay quatre-vingt mille ay soixante dix mm-hmm. loolu la mais tamit bëgg nañ gën a wàccee defar ay tenue yu gën a yoo xam ne dina démarrer ay vingt cinq mille trente mille. pour comme ça ñëpp mun si gis seen bopp quoi. waaw am na solo parce que dëkk a parce que fii moom li may wax rek man man fekk ma fi rek. fekk ma fi parce que nit dugg na fi yorul dara. jël ko muy dem. ñun bon ñun amuñu problème boobu quoi. Mm-hmm. mais dinañ gën a bàyyi xel tamit ñu seen loxo jot a seen ginnaaw. Mm-hmm. comme ça ñu mun a adhéré par par Thaïlande. loolu am na solo parce que euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, le prince des cadres bi amaat di man aussi accompagnement bi ak euh, compagnonnage bi yàgg na ça fait plus de six ans d' accompagnement donc ñun bu waxee si yow aussi war nañ ci man wax ci professionnalisme ci respect ci gëm li ngay def ci bëgg li ngay def ba toll fi nga toll donc tout le mal qu'on te souhaite mooy que nga réussir ko d'une manière extraordinaire ba fii ku fii tudd rek styliste wala boo ko tailleur si Sénégal njëkk ci sa tur incha allah te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def donc ñu bàyyi la rek nga nga wax sa dernier moom comme gars yi dañuy bañ dernier moom ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokku internet yi bu fekkee aussi am na loo xamante ni fàtte nañ ko ci euh, question yi nga laa fa rek expliqué ko leeral ko ñu tëj incha allah. d'accord maa ngi di remercier d'abord di remercier di remercier équipe Talla Dóor bi yëpp. di remercier clientèle bi. di remercier surtout ñu may jogandoolu ensemble quoi mm-hmm. parce que man maa fi nekk rek bëgg affaire yi di gën a baax mm-hmm. di gën a yemb parce que su ma fi nekkee lu bëri dina changé quoi mm-hmm. mais ñi ma fi nekkal mm-hmm. ñi ma embauché pour ñuy liggéeyandoo mm-hmm. wallaahi ne su ma fu ma demoon toog sama xel dina tal quoi parce que xam naa ne dinañ ko defee ak ni ma ko bëggee maa leen di remercier di remercier production bi équipe de production bi mooy tailleur yi maa leen di remercier bu baax di remercier clientèle yi xam nga di remercier surtout ñi am confiance si si si Talla Dóor ba fi ñëw di fi bàyyi seen tusi yi surtout affaire bu may gën a marqué mooy. Mhm. am na ñoo xam ne dañ fi ñëw ma ne leen carrément da instant yi clôturé nañ. te maa leen tàmm defaral tamit. Mhm. ñu ne ñu ñu ne ma seex ba ñu ñawlu dañ ci bàyyi suñ suñu ba après fête bi nga ñawal. en fait loolu daf ma marqué parce que. Mhm. Euh, ñoom ñëpp feet moo tax ñu jënd seen tissu comprendre nga sama yéene man tamit mooy ma defaral képp ku bëgg sol tenue bi ma defaral la ko ni nga ko bëggee ma jox la ko mais tamit day am day am limite am na xamante ni soo ko toppee di jël di jël di jël di nga di nga changé sa qualité tenue wala di nga produire loo xamante ni bëggoo ko produire wala nga yàq tissu jàmbur loolu yëpp tamit mën na ñaaxu quoi ñun li ñu incarné war ñu def défaut défaut yooyu noonu quoi. loolu loolu moo tax ñu jàll clôturé. Mm. bon euh, maa ngi remercié client yi fi indi seen tusi te mënuñu ko ñaw maa leen di jégalu bu baax su ma sañoon ñëpp laay defaral wax dëgg yàlla. Mm. comprendre ngeen maa ngi remercié waa Univers Info bu baax. Mm. di remercié sama waa Jalle. di remercié. képp kuy sol tenue tailor-d'or. Mhm. waaw affaire yi moom fu mu yegg nii. Mhm. vraiment nit yi la quoi. am na solo macha mais am na benn point boo xam ne mu ko fàtte woon sur le plan de la communication digitale. tailor-d'or est partout si réseau yi. est-ce nga ñëwaat ci euh, sa sa sa compte ne di la rechercher ak euh, système boobu noonu naka nga ko naan ba am sa communication digitale boo xamante ni c'est une équipe bu koy gérer. waaw euh, ñun moom. mën naa ni communication muy indi ci ci ci moment bu ñu toll nii. Mm. parce que nekkul amul benn télé bu dem wala amul benn télé bu ñuy introsé wala dara. réseau yi lañ nekk ñooñu Instagram Facebook xam fa lañ nekk di def suñu communication surtout Instagram quoi. Mm. Instagram soo duggee Instagram soo defee taaloo door di ñu gis. Snapchat ñoo ngi fa taaloo door. Mm. Facebook tamit mën nga def taaloo door. bentoo tamit site bi disponible ak application mobile. bon ñu def 3w après gars yi di jàllale seen command foofu. ñu koy ñu koy valider quoi. am na solo su secret si def télé plateau. Mm-hmm. si yow ñuy solo si mel ni ay ñoom Abba dañu leen di gis. waaw waaw célébrité moom ñu si bëri d' abord samay gaayen lañ quoi Abba moom du fi jóg sama gaayen la. Mm-hmm. ba pare day jàpp si liggéey bi. comme mm-hmm. da si jàpp bu baax. parce que daf ñuy daf ñuy yokk doole dañu promouvoir xam nga mhm. bon ñun moom bo ñu ngi ñu ngi ñu ngi gérer quoi ñu ngi sant mais ku ñëw tamit bëgg a liggéey ñun ensemble mhm. su dinañ xool nu ñuy nu ñuy liggéey quoi mais Abba moom suñu partenaire la quoi. moom moom fii lay fii lay solo fii këram la. ak yeneen gars yu bëri yu ñu nekkuloon ak partenariat. Mhm. mais instant yi Aba moo fi nekk. d' accord moo fi nekk ñu koy nuyu au passage. waaw ah. daanaan bi donc Amis Internautes c'était tout pour votre euh, énième numéro de jeune entrepreneur ñu dalaloon tey le PDG de Taylor-Dor Cheikh Tidiane donc euh, ñu amoon mbégte ak contentement ñu fi euh, pour la jeunesse sénégalaise donc kii dafa mat exemple pour ngeen jël ci moom doy ci moom bañ parce que wax na leen ko du papa du yaay du xarit du nijaay bu kenn moo ko jàppale ba mu toll fi mu toll dafa gëm boppam liggéey ba yàlla fekk si ko si donc vous pouvez nettement prendre son exemple yéen aussi ngeen gëm seen bopp bàyyi toog bi xam nga bañ a xaar aussi ngeen nekk si yàlla dina leen fekk si yéen ñëpp c' était votre humble serviteur Petit Galo Sow dans votre émission Jeune Entrepreneur on vous donne rendez-vous très bientôt ak beneen daanaan à la